dama auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi noo leen di nuyu fu ñu leen baaxu nuyoo muy seen télévision Mafatihul Bichri di leen ñaanal di leen jox wàccuwaay te ci jiital Cheikh Mouhamadou Mountakal Bachir xalif général kullu murit muy ñaan suñu borom yàlla yàggal ko fi lool te àndal ko ak wér ah ba naal wu mu naal bëgg koo lëggeel Cheikhul Xadim mu yeggale ko sagoom te ànd ko taalibe yëpp fàttali leen rek mbokk yi noo ngi ci dëkk bu tedd bi di njaareem ba tey àndante ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ci fan yi nga xam ne baaxoo na ko amal bu weeru tamxarit xarit jotee fii ci dëkk bu sell bi di njaareem tey nag di le 8 septembre 2019 ñu nekk ak yéen fii ci kër Cheikhul Khadim dëkk bu xamante ne bii mooy njaareem di dëkku Cheikhul Khadim waaye ci biir kërug boppam gi fa yéene leen a amal nag dëkku découvert bu mag boo xam ni. moom ngeen di gis ci sunu gannaaw muy barab bi nga xam ni sunu jàmbaar ju tedd ja Cheikhul Khadim fi la wàcce woon ab liggéey ñibbi Touba loolu nag doonoon 1927 ñii wax ne bisub àllarba la ñii wax ne bisub talaata la waaye daal lu ci ëpp solo rek mooy keroog bi nga xamee ne mi ngi koy def xay gii ngeen di gis sunu gannaaw fi la toogoon woolu magi taalibe yi ñu wër ko mu woolu Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana jàngaloo ko alquran baqara ba naasi waaye bu mu ëgsi mu firi ko waaye nag wax ni ab naa fiq di mel dëgg-dëgg wax ni ab jullit war a mel dëgg-dëgg ci la daldi jóge nag daan ne xay gii moo ma xamal ne yàgg naa fi ndax maa ko fi jëmbatoon te maa ngi fi toog di féexlu dugg ci néegu boppam bi muy néeg bii ngeen di jàkkaarloo ci sunu gannaaw daldi def la ko soob moom Serigne Touba Khadim Rasoul loolu nag moo tax télévision mu Fatihul Bichri amal ci découvert bu xaw a gàtt boo xam ni nu ko seq ak Baye Moustapha ñaan miy wattu barab bi ngir mu leeral ñu dara ci barab bi nga xam ne moo nekk sunu gannaaw mu nekk ci biir kër Cheikhul Khadim di barab bi nga xam ne fi la wàcce woon ab liggéey Cheikh Momadul Moustapha taawam bu baax ba àndante ak Cheikh Mouhamadul Bachir jële ko fii yóbbu ko tuuba seen mbokkum taalibe Serigne Mourtala Gueye géwélu Xaadim Rasul ci micro bi ci caméra bi Serigne moodu Cissé kon mbokk yi ni ngi njaareem ak Cheikh Mouhamadul Mountakha nii lañ ko fa yéene ànd ak yéen ñu dugg ci biir gër Baye Moustapha waxtaan ak moom ci barab bii nga xam ne mooy barab bi Serigne Xaadim ñibbee Touba ba ànd ak dogalu borom bi jërë ngeen jëf la département Borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bassir sama sang bu tedd ba say ñaan sëñ Muntaxa mi fi nekkal sëñ ci kaw suuf képp ku di jullit ca ci kaw suuf nañ ko ñaanal mu yàgg fi am dundug nooyin nga Cheikh Muntaxa Mbakke yal na fi yàgg ànd ko moom liggéeyal sëñ Touba ba am ngërëmam barab bii ngeen ñëw tey mooy fi sëñ Touba wàcce liggéey benn barab la ci kaw suuf am fenn ci mën dañ ci ba mu jeex ndax sëñ Touba fépp fu mu jaar ña ngi koy siyaare am fab seconde képp ña ngi koy siyaare ña ngi koy sellal ña ngi koy màggal ña ngi cay barkeelu waxantuma nag fu am fukki at ak juróom yoo xam ni fii la ko yonent bi fekk am feeg moom fukki fan ak juróom sëñ Tuubaa def ko fan waneem at moo di fukki at ak juróom yi nee na saa yoo fi duggee dang nga ko fekk wala boo nee mu fekk la fi ginnaaw loolu itam sëñ Moodu Moustapha ak sëñ Basiiru waajuru sëñ Muntaxa yi nekk ci kaw suuf sëñ Tuubaa tey ñoom ñaar ñoo ko ñoo ko jëli fii ci ba ba néeg bii wax nañ ni ñu bari dégg nañ ni oto sëñ Balla Coro Mbàkke moo ko ñu bari dégg nañ ni aliyatin bàyyi riyaat naar oto boobee moo yóbbu sëñ Tuuba Tuuba amut oto bi yóbbu sëñ Tuuba oto sëñ Balla Coro rakki sëñ Touba moo ko yóbbu oto ba marque ba dalaay la tudd sufoor ba duudu siise la tudd sëñ Modou Moussa teg ko ci loxol sëñ Basiiru sëñ Basiiru na ca bopp oto ba ak nga sëñ Touba wax ñu ñu ànd ak moom li nga xam ni itam romb jaan gam te doon it te xaatil munaajaat cib dëndam mu ngi ci biir barab boobu ak juróom-ñaari gaal yi mu fi nekk ndooloon xomb yaa ci mujj kenn xamul li ca ne ba léegi barab bi ak kaamil alxuraan ak xasaay yi mu daa jëfandikoo moom la daa riima ci lal yi ba mu fees dell mu di ci sotti laaj ko ñu sikki lal yi lim daa rafet rafet daawuñ ci tëdd alxuraan xasaayit nee itam barab bi lépp lu fi waay ñaan suba ba ngoon ca amoo ko na leer ni ci yow la waaye du ci moom ca nga seetaat sa bopp barab la boo xam ni booy boo ma ni mun daan ci jëpp amu fi ndax sëñ bi fépp fu jaar am foofu seconde ñu ngi koy màggal ñu ngi koy sellal ñu ngi koy barkeelu waxantuma fu mu am fukki at ak juróom yoo xam ni fa la ko yonent bi fekk mooy borom bi ngeen ñëw tey di ma ko laaj ndax ku fi dugg moo la fi moo la wol boppam bëgg fee dugg taxul nga dugg fi ndax am na ñu juddoo ci dëkk bi ba xëy màgg ba am jabara ci doom ci taxul ñu mën fee dugg kon na ku fi dugg borom wala fi woo lii laa ci amoon ci lu may lu may wax say ñaan nag yàlla may nu fan gudd ak wér mu doon ci seytaane ak musiba ak balaa ak deegu ñaaw ak gàtt fan ak cat ak lammiñ ak bët bu ay fan wu gudd wér gi yaram aaja ji faju mu ko rafet sahandatu daaray ni am ngërëmal sëñ bi cee ñaan suñ sang bi yàgg fi lool ñu ànd ko moom liggéeyal sëñ Tuubaa ba am ngërëmam